asalaamaaleykum askan wi ñu ngi leen a uh, di leen njëkk a uh, bataaxel di feeti uh, Eid Mubarak jóge nañ ci korite ji fu mu nekk nii sant yàlla bu baax a baax a baax koor bu am maana koor boo xam ne ñaan nañ yàlla ne mu jégal ñu suñu bàkkaar ci jataay ji tey nii ki may waxtaanal di ku ñoo ooyee Talib Ahmed Bensouda di incumbent mayor bu KMC ah, xam ngeen ne lu du yàgg sax ah, on the 20 of May dinañ am lu ñoo ooyee mayoral elections yéen ñëpp gis ngeen council election ci passé a ah, mayor maa la sargal di la nuyu di la yónnee bataaxel yi Eid Mubarak ba pare di la ndokkale ci li nga xam ne mooy council election ci passé léegi nii ci KM 19 wards ñoo nekk KM sa parti di UDP gagné ci 16 ci lan ngeen ko weer gagné boobu noonu ma boobu noonu. jërëjëf Mr Jones di la sant di la gërëm. Hmm. di gërëm Star TV. kontaan nañ seen ñëw bi fii di wis Gambien si yëpp it mu barak hmm. di ñaanal ñëpp jaama yàlla yàlla nangu koor gi comme noo ko waxee win nañ uh, 15 seats 15. out of 19 mm. Uh, bi is under contention mooy Serekunda Barthes wante kontante bu bëri lañ si am because uh, ku xam council nga xam ne councilo yi ñoo amee doole bi uh, comme section 48 of local government act wane na ne council as a body ñooy di executive decision maker ñoom tam ñooy political decision maker of the region kon ñun suñ si waree am 15 seats out of 19 loolu wonee na confidence bu bëri si suñu leadership ba pare seetal na ma di platform and foundation pour mun a indi more development in the municipality. ñu njàmbaas ci lii because we is just coming up right now um, Bartes problème am na fa mu ngi in contention lu xew. dafa am si benn polling station si ah, si benn sheet si ah, NPP candidate bi dafa amoon 48 ah, tokens originally gars yi scratch four bi. transfert ko pour mu nekk ETIFO so ñu gis ne loolu ah, ah, comme taxanaxel daal so councilor bu ñu represent moom agentam bi claim na ne ah, IEC ñoo ko change after the fact and other agents in the polling station ñuy represent yeneen party ak independent candidates corroborate na story bi ne IEC dañu change the figure without their consent kon mbir bi bu gars yi demee AIC AIC ñu ne na gaay dem court court bi su joxee order ñoom nañ ubbi ballot box bi ñu compter waat ko so incha allah gars waaye li ma yaakaar lu tax lu war a am because the original one bi foofu la attestation si nekk signature si yang fa yow sa sa sa agent dina sign agent yi NPP dina sign agent yi ñi taw yëpp seen agent yi nañ sign. waaw fi ñu change ñu scratch ko. Ah, ndax boobu authentiqué woon nañ ko. so according to evidence bu ñu gis mooy ne gars yi bu ñu sign agency yëpp presiding officer bi dafa initiate bu ees bu am changes yi that all the agents did not sign so foofu la problème bi nekka ah, mu tax be suñ ah, councilor bi based on the changes mu lose by thirty something votes so anyway ah, ñun seet nañ evidence bi and we are convinced ne fraud am na fa Ah, wante mbir bi ñu ngi ko yóbbu suñu lawyer bi pour mu challenge ko in court pour make sure ne ah, compté waat nañ ballot si wante si biir élection bi tam ah, mhm. yu bëri xew na lu ñaawal xel because soo xoolee a lot of the polling stations ñi ngi amoon lu ñoo ooyee vote buying mooy gars yi NPP yi dañu indi woon baagi xaalis di jox vote si xaalis as they are making it to the polling stations so gis nañ loolu mu ngi xew widespread si municipality bi during the council election even on cooling day period gis nañ gars di yóbbu milling machine si ay community gars di yóbbu xaalis si yeneen community bi so gis nañ lu bari lu nga xam ne is undemocratic against IEC rules I think sooy politique is better nga jaay sa agenda jaay luy yóbbu Gambia kanam rather than pour induce nit ñi pour ñu votal la. ndax yéen bi ngeen gisee loolu. oo ngeen ñi nga xam ne ñoo nekk AIC on the ground ne leen lii la ngay xew. waaw ah, suñu consulat mm. yu bëri report mm. nañ ko to various AIC officers ah, am nañ case where benn si ward si sax tuuti xeex am fa because of this activity police yi sax am na yenn instances they reported it to the police wante gisuñ mo much action ñoom dañ dee daaxa ñooñu rek wante duñ leen dee arrest and I think that is a arrestable offence Ah, pour di toog si koona yi di induce nit ñi. am nañ instances where da ngaa gis agents with bags from that party dañoo wóor kër to kër di wàcce nit ñi envelope. Hmm. of money. so lii yëpp lu nga xam ne jaaxal nañu trop and I think war nañ si taxaw because dafa mel ni bàyyi nañ di politique pour développement yi réew mi léegi luñ gis rek nañ jëna carte nit ñi nañ poison seen xel pour am lu ñu bëgg am. Kanifing municipality municipality bu yaatu la am nga fi téeméer juróom-ñaari ah, ah, téeméer juróom-ñaar fukka ak juróom-ñeneent ak ñetti téeméeri karta électorate bi noonu la am 179800. Hmm. waaye man yàgg naa topp election yàgg na monitor election yàgg naa analyse election results. Hmm. te gis naa ne ñaareel nit ñi duñ dee fulal. Ah, council elections even sa su ñëwee ci mayoral sax duñ ko dee toolalee ni a jàppee national assembly ak presidential election waaye xamuñ ne councilors si ñoom ñoo dee doxal agenda bi ci ci ci biir ci biir council mm-hmm. ah, léegi ma bëggoon there was much li ma ooyee laissez-faire attitude mm-hmm. ci election bi passé nii council elections yi lan moo waral loolu in Gambian elections is normal ne dañ dee am presidential moo dee am highest turnout. Mm. the national assembly elections moo dee ñëw second the local government elections moo dee am lowest uh, turnout. to mm. this election 2018 gis nañ the same thing uh, actually this election moo ëpp a turnout than 2018 based on suñ assessment. Mm. because in 2018 uh, election mi ngi amoon around 30 percent turnout. beyond KMC 38% la and countrywide 41% uh, turnout kon gis nañ ne interest bi yokku na uh, si council elections yi wante comme noo ko waxee loolu la ah, council soo déggee council councilor la hmm. moo tax man bu ñoo dugga si élection bi always lu ñu dee waxtaanee mooy duñ xam naka lañ mun a ñëwee indi développement naka la ñoo mun a liggéeyee suñ amul majority because mayor yow danga nga ñëw teg agenda bi on the council floor councilor yaa dee vote ndax pour budget la ndax pour procurement la ndax pour ini liggéeykat daaxa liggéeykat lu council mun di develop lu council mun di dogal rek mayor yoo da nga koo ini on the council floor council lay sànni karta da da ngaa gis ne first order of business council bu suñ leen swear in sax mooy pour tànn deputy mayor hmm. so yow sa parti su amee majority deputy mayor bi sa parti la moo jógee kon ñun ñu doon advocate for a long time dañu waroon a boole élections yi because tey su fekkee ne yow yaa ngi ron for mayor yaa ngi gis ne beneen parti am na majority lan ngaa mun a wax nit ñi ñu gëm la because tey soo ñëwee si nit ñi. Mm. nga ne leen da ngaa def développement. mun nañ laa weddi because dañoo wax ne amuloo majority soo ñëwee si nit ñi nga ne da indi certain project mun nañ laa weddi because dañoo wax ne yow amuloo mandate because council baa la mun a jox ah that mandate so councilor election lu am solo la trop. and bugga nañ Gambia ni understand tam ne these are the elected officials ñu gën a jege nit ñi councilor si gox gi la dëkka si ward bi la nekk si community bi moom moo dee chair lu ñoo ooyee VDC wala WDC mooy di doorway of development in that community so buggoon nañ Gambie ni gën a ko fulal wante gis nañ improvement ah, mayoral election bi dëgga la history lum ñu woon mooy ne na uppa turn out councilor election bi wante ba léegi parliamentary moo ko dee gën a am turnout. daanaka mu mel ni yow boo ñàkkoon election bii nii ñëw nii councilors yi will be very defiant to whoever must have come to win from another party. so the relationship fu mu between the political parties especially NPP. ak mm. UDP. Mm. the level of confrontation level of tension bu fa nekk tey dafa naxari torop. pour a, a, a, a NPP mayor run council. Uh, being the UDP, I'm the super am I'm mm the -hmm. last time we had 12 councillors out of 19. Mm -hmm. we have 15 out of 19. kon dafa mel ni deputy mayor bi mooy dogal su fekkoon ne mayor bi is from a different party so I think mandate council is very important for a mayor mayor bu am mandate because tey mm-hmm. as a UDP mayor su ma waree head di new council development ñu ma bëgg a indi yëpp dafa easy pour ma indi ko wante that would be extremely difficult for a, a mayor from another party. yàggul bu ma toogee président réew mi ah, His Excellency Adama Barrow ñu waxtaan moom ci biir waxtaan jooju noonu wax na ma ne moom lu ko gënal mooy seven seats yëpp seven administrative areas yëpp mu gañe ko ndax léegi li xew ci council elections bi yii ni ñu passé biir KM dafa war a nekk lu difficult pour moom léegi suñ mënee buggee translate outcome bi. su fekkoon ne ñi ngi toppal luy intérêt dëkk bi ah, mooy ne développement réew mi. Hmm. teguma ne political difference war naa tax développement jafe. Mm. wante seetaan naa interview am bi moom si biir interview bi lu mu doon wonee mooy ne su amul nit ku jógee pateem du mën a liggéey ak moom ah foofu man am naa différence ak moom because utee pati nit mooy xalaat yu différent mooy xalaat yu utee wante loolu warta tardel ah, développement yi askan bi because tey soo xoolee moom parteem bi ah, contrôle nañ Brikama area council lu yàgga contrôle nañ Kuntaur area council lu yàgga wante council yooyu performul an council yooyu gën a ñoo perform BCC ak KMC ñu nga xam ne different party la so I think suñ doon toppa luy supreme interest si Gambia ah, utee parti warta tardel développement bi wante su fekkee ñu ngee toppa moom waxam ah, teg naa ne moom su fekkee ne parti la moo doxalee léegi dafaa gën a difficult pour mu am lu mu bugga because ñoom tam fu ñu mistake mooy ne mayor du council gis naa ne teg nañ seen xel trop si individual kuy mayor ba pare mayor dafa nekk ku nga xam ni amul executive power mayor dafa uti président hmm. président am na executive power mun naa dogal lu bari without parliament wante mayor dooleem bi yëpp si body of the council la day jógee because tey soo xoolee liggéey mayor si local government act chairman lañ fa bind sax duñ dee tuddee mayor dañ dee ne chairman of the council liggéey chairman bi mooy lan dañoo indi agenda ak vision ak plan mooy ne ñun suñ gis-gis fii nañ ne municipalité bi fii la war a dem fii la war a jublu suñ xalaat agenda yi lañ war a teg pour municipalité bi mun a dem léegi da nga war a indi xalaat yooyu si council floor bi pour council yooyu yëpp waxtaanee ko then through a vote gars yi decide ndax yow loo bëgg na am ndax du am wante tey su fekkoon ne yëfi politique la ñoo doxal mooy yëfi parti loolu président bi du ko mun a amaat KMC because council bi set na ba pare and it's of a different party wante su fekkoon ne mun nañoo teg yëfi party interest aside teguma ne président bi war naa gis ne KMC su nekkee under UDP control loolu war naa tardeel ah, développement ah, ah, region bi wala dëkk bi and ñun foofu lañ yàgga di advocate ne as a council ñun we are ready to work with anybody pour mun a advance agenda of the region dinañ dellusiwaat ci cadre président bi ci bi ma ko interviewé ba pare dinañ dellusiwaat ci li nga laa léegi nii sa relationship ak government. ñu ñëw nag ci élection si on the 20th of May. Ah, di nga jongante Bakary Badji njëkkoon ngeen a jongante in 2018 mu amoon 5236 votes Mungita won as an independent candidate. Yonga am 29,326 votes. Duma bu miti miti miti. Why? Jamono demna fumnekani. He's a minister of youth and sports. He's got a clout. I'm not, I'm not, uh, um, rango fumnekani. Um, lan nga lan nga lan nga séntu seen jongante loo séntu man to be honest du ma dee xool suma opponents si suma liggéey man suma track record laa dee xool. ah ay booy bi di nga xam ki nga kanay bëri de. <laughs> ki ngay daal moom. Uh, to be ah, ku yooyu ku mel ni maan di ma daan yaa ma ëpp doole. man part of the reason lu ma lu ma foog ne moo tax ma mun a successful as mayor. mooy ne du ma dee xool opposition bi man dam dee xool lan mooy suma agenda. Hmm. lan mooy suma plan lan mooy suma mbébét an si loolu laa dee focus soo xoolee dis uh, past election bi ak dis election mooy council election bi politique nañ ba pare wante mosu ñoo tuddee président bi mosu ñoo tuddee ministre bi mosu ñoo tuddee ñeneen ñun luñ dee wax mooy ne suñ ñëwee lii mooy suñ plan lii mooy suñ agenda and I think this first round wanee na lu bari because soo xoolee UDP votes yi mi ngi 32 000 nga xool NPP votes mi ngi 14000 because ñoom bu ñëw politique seen entire politics bi di attaque UDP di attaque suma personnalité mais yoo deful dara ma yoo nii mais yoo nali bon ñu faatee ne sooy politique soo waxee nit ñi ne diw dafa bon loolu taxut ñi ne yow da nga baax ba pare bi lu mu gën a am intérêt gannaaw nga ne ko diw munut diw xamut mooy nga wax ko yow soo ñëwee ban développement ngaa indi yow lan mooy sa manifesto lan mooy sa agenda pour indi yokkute. but ñoom seen entire focus was to bring us down and ni ñi aatee nañ ñu because this first round wanee na ne positive politics moo gën a am njëriñ moo gën a am impact. so man su ma dee politique du ma dee xalaat kan mooy suma opponent man dam dee xalaat lan mooy suma agenda because end of day kan la ñoo waxtaanal mooy askani Gambia so secondly mooy man du ma dee seet ministre bi as my opponent ministre bi soo gisee ñu indi ko yëfi politics la rek because as a sitting minister like you said yow am nga portfolio youth and sports su fekkoon ne develop réew mi la rek already am nga platform su fekkoon ne indi yokkute la si KMC already you have that platform and arguably am nga bigger platform sax platform bu gën a rëy than mayor yow loo mun a indi in terms of development as minister ëpp na lu mayor mun a indi kon gis nañ ne soo gisee ñu indi ko is not pour indi yokkute si askan bi wante is just for partisan politics mooy ne mayor bi gis nañ ne liggéeyal na nit ñi gis nañ ne am na confidence si nit ñi gis nañ ne dafa naxaree génnee ko nañ indi ku nga xam ne ministre la am na taxawaay pour mun koo buddi si place bi ba pare now more than ever sax after UDP win 15 out of 19 seats ministre bi su toogee moom kee na war naa xalaat sax léegi man suma bàyyee ministre ma ñëw as mayor ban développement laa mun a indi because already luus naa man awma man déet already council bi decide na ba pare moom mi soo gisee ba léegi ñuy pousse pour politique la rek pour wane na ne ñoom tam wiil nañ mayoral election bi wante one thing I can tell you ne is not for the development of KMC or for the uh, uh, positive impact on the community yaakaar nga ne di nga win. su fekkee di nga win ci foo ko wéer foo wéer loolu. of course moom noonu waaw yow am nga confidence lool bi nga of nga win. soo gisee foo ko wéer. soo gisee ñu indi ministre ñoom sax dañu yaakaar ne. damaa mm, win mm, mm. because man bu ma nekkee fii KMC past five years exercise uma partisan politics ñun dañ ñëw fii pour transform municipality bi pour mu nekk service driven institution mooy jëlee KMC from a political bureau. du office bu nga xam ne dafa liggéeyal askan bi buñ ñëwee ñetti parti ñoo fi nekk PDOIS APRC wante koo mun di laaj si kansula yooyu nañ la wax ne mayo mosu ñoo woon ne bokkuñ parti mhm. any agenda buñ am suñ gox yi as far as is for the development of our community mayo is always giving his full support and unconditionally man lu ma dee wax rek mooy ne soo defee development loolu rek moo garanti mhm. because nit ki du mun a wéedi am nga impact si life am nit ki mënut a wéedi ne am na yokkute si community bi so the most guarantee activity in politics mooy nga indi development an naa la jox evidence uh, during the parliamentary election ñetti councilor ñoo resign KMC kenn ki PDOIS la jóge Moussa Thiam keneen ki APRC la jóge Souleymane Jammeh keneen ki UDP la jóge Moussa Badji they all stood and all three of them won and they all three from different parties ma joxaat la beneen out of this councillor election eleven incumbents of UDP all won and came back. mu uh, mel ni out of. waaw mooy ni ñi am nañu wóolute ci ñoom. mooy wóolute bi mooy ne ñi. jox nañ ñu seen kàddu li ñi won nañu ne liggéey buñ doon def fii gars yi apprécier nañ ko. léegi ñu teg élection bi ab boor dinañ dellu si waat. Mm. yaa doon di coow coow yu mag fii di wax affaire yi corruption ci biir ah, municipalité bi. Ah, allegations ak sa CEO coow li dem na dugg na fii génn na fële ministre bi code si local government service commission bi ba ci mujj bi daal. maanaam Sainabou Martine daal dellusiwaat na ci biir place bi ah, ba pare ah, sa député CEO ñu ko binda ne ko na bàyyi ndaw si na ndaw si liggéey liggéey bu defete dara loo xam ne mu ko obstock daal dinañ dinañ egg fenn ful loolu léegi dawale ñu dawale ñu si di saaga lana xew cooli cooli daal lana xew tari <laughs> so saaga bi saaga bu interesting la um, and lu gën a interesting mooy uh, boo doon interview ak his excellency mooy nu mu toppee saaga bi at a very detail level man sa dama surprise. am nga plateforme léegi nag. nga dem trop so uh, it's an unfortunate incident. Mm. wante mu nekk lu nga xam ne waroon nañ ko solve lu yàgga jarul woon mu àgga fii. Mm. Um, incident bi bu mu dooree mooy yëfi staff welfare bi so CEO bi dafa ñëw si man ne dafa bëggoon a transact land on behalf of the staff so at that time dama ko wax ne mu bàyyee ko staff welfare bi because moom nekkul executive member because staff welfare bi dañ dee dem élection ñu am seen own executive wante mi ne moom as a CEO dafa bëgg a dimbali gaay so ma ne ko baax na so mu ini benn laan mi ne dafa bëgg a jënd laan bi on behalf of staff welfare bi man ne ko naka nga koo defee mu ne through a loan ma ne ko baax na wante mu at si man mi ne léegi dafa soxla garantie from council pour council garantie loan bi ma ne ko loolu ta nekk ma ne ko council sax amuñ autorité bi sax pour joxe garantie without the approval of the ministry because yow tey su fekkee ne ñun garantie nañ loan default am Now we have to take from taxpayers' funds pour mun a fay that loan. and su fekkee ne council bi garantie nañ dara munuñ koo fay government ñoo am pour step in to pay for it moo tax luwaa bi ñu def ko in that way in the finance and audit act ne tey council soo leen buggee jël loon da ngeen war a force dem si ministre bi pour mu approve ko moom mi ni am nga endorsement government soo leen defaulté government step in so this was 20 bu mu ñëwee si man so amaatul few months mu ñëwaat si man ma jox ko the same advice ma ne ko soo leen di dem for it council mënut leen a garanti hmm. and comme nu ma la waxee anything lu council mun a def da nga war a am council resolution mais yow man kenn sax mënuma koo def su fekkoon ne tey man joxee naa banque a garantie without an actual council resolution am criminally liable and it's the same structures exist in corporate world bi tey as a, a board of directors ñoo la mun a jox approval as CEO pour jël liability on behalf of an institution same rules la so basically in 2020 2021 ma am report from the president of the staff welfare ne CEO bi ak ko dañu dem jël loan on behalf of the staff welfare without the authority ba pare ñoom ñooy président bi and executive bi ma ne ko ah wante naka la mun a jël loon mu ne council moo ko garantie ma ne ko non loolu munta nekka council munta garantie dara man yëguma ko because man maa ko may teg agenda si table bi so si laa ko somoon and somoon entire directorate bi in lan meeting mu d'accord ne def na lu moom moo def yëpp mi ngi apologize lu si mun liggéey na rek moom na accept blame ma ne ko well I can forgive everything wante lii mënuma koo baalale because it's a deliberate breach. deal bi dugg na mm, so I even had to call the bank pour banque bi cancel part of the transaction bu duggaangut so I cannot tell you all the details because long mm. story la. wante the major point moo nekk it was a breach. of the law. But then you send her home. in that instance, man lu ko advice. Mm. ma as a brother to a sister. Mm. if you resign honorably. Mm. for naa mooy gën si because this is a criminal offense. but she got an advice from outside. I cannot tell you who. I know she said she would resign and she left and came back mu change. So I took the case uh, to the minister. at the time so moom dafa bëggoon pour ñu solve affaire bi in house ma ne ko non I cannot so ma send copy to the police ma send copy to the service commission but ministry bi intervene at that point ñu stop police investigation because I think any citizen anybody can report a matter to our police especially in regards to public funds mm. and hmm. fraud for them to investigate. Hmm. So guy intervene, stop the investigation. So ñun ñu am general council resolution ne since there's allegations on the CEO and co on matters of fraud we are asking them to go on administrative leave until they are cleared via an investigation whether they have done right or they have done wrong. and this is well within our power nga in the local government act it says ne dëgga la local government service commission in consultation with the mayor appoints the CEO mm. however after the CEO is appointed and handed to the council the CEO reports to the mayor and is under the direction and control of its council so hmm. council as a body suñ toogee hmm. unanimously vote ne we are directing you to head on administrative leave until you are cleared by an investigation through the Service Commission. That is well within our power. wante di ministry at the time daw si président bi won ko ne ñun amuñ right amuñ doole to send the CEO on administrative leave because ñoom ñoo appoint CEO bi which he was misinformed and we are very disappointed with the attorney general because moom moo waroon a advice président bi council is an elected body that is highly autonomous mooy ne nit ñi ñoo ñu dooleel through a vote pour ñu dogal lan mooy xew council fi hmm. moo tax ñu ne CEO bi is under our direction and control so ñun daaxuñ ko mi ngi receive full salary all we are saying is investigate leen evidence bu ñu leen jox Mr. Jones soo amee bitig sax kon a sob ku faa jaay ñu alaj ko of fraud dinaa da nga koo wax mu togangum kër ba nga xam ndax dëgga la am du dëgga wante ndax di nga ko bàyyi si sa alal pour mu continuer di ko manage fekk ñu ngi am allegation on them it's not possible so gars yi misinform uh, his excellency gars yoonu fi police PIU officers ñu ne dañoo forcefully reinstate CEO bi so ñun tam si lañ daw dem court because ñun amuñ feteel amuñ mënuñoo fight ak government bëgguñ ko sax ñun we want to cooperate and work based on legality so si lañ dem court ñu ut interim injunction pour prevent the CEO from forcefully being entered into the council until we can get a permanent injunction court bi grant you interim injunction ne CEO bi warut a dugga council ba court bi mun a xool case bi so case boobu jël one year six months just injunction bi lu nga xam ne Mr Jones fanaa two days munoon nañoo investigate matter bi hmm. so during even that period of one year six months bi ministry bi decide ne léegi ñoom dañoo seen investigation team si council bi this was 2021 around October So Minister Bitana, six inspectors, handpicked. Three from the local government ministry, three from the Ministry of Finance, Internal Audit Unit. Guy Nyofi, ma present them to the council. yi door their investigations. You neck for three months. You join them access to the uh, uh, uh, staff sent on administrative leave. You join them access to all the councillors, access to myself, access to every document when like that. three months ñu nekk fii di investigate léegi ñu ñëw tàggoo ñu ne investigation bi jeex na léegi gars yi dem wante déggaatuñu gars yi gisuñu report dégguñ dara. mais tey. ba in 2022 after presidential election bi ñu toog rek ministre bi bind nañu ne dañoo set up a ministerial commission of inquiry. ok mu activate section in the local government act. section boobu lu mu wax moo nekk if there is a serious report on the council mooy ne am na report si kaw council bi ne lu garaaw xew na fi then ministre bi am na doole pour set up ministerial commission of inquiry wante ñun lu ñu doon wax mooy ne ñun bañuñ nga set up commission of inquiry wante ana report bi because yow seen nga investigators generate nañ report which is a public document in good faith su fekkoon ne looy def lu baax la aussi yoon la war ngaa mun a bind council bi ne report bi mi ngi nii lii mooy suñ serious finding on the council moo tax dafa tax léegi ñun ñi ngee start ministerial commission of inquiry so ñun ñu fiil ne ministerial commission of inquiry bi dafa nekk lu nga xam ne is set up in bad faith mooy ne defuñ ko si xol eh, eh, eh, bu set dañ ko def pour tilimal nit ou pour am dara on somebody so ñu demaat court high court judge bi mu rule mi ne gars yi suñu waree set up this ministerial commission of inquiry gars yi dañu war a produce report so si la judge bi order gars yi gars yi joxee report bi wante hmm. to our surprise bu ñu riidee report bi on all the terms of reference involving councillors and the mayor there was no finding but on all the terms of reference in, uh, uh involving ñun mata bu ñu report mooy di allegations exactly lu ñu loolu la seen investigation si file with evidence and the report now is a public document because bu ñu ko jotee ñun tam we released it to the mooy ne ñun lu ñu doon report yëpp lu am la so high court judge bi foo da rule ne hmm. ministerial commission of inquiry amul doole sax pour summon witnesses amul doole pour laaj anybody pour mu produce evidence so gars yi bu ne foofu fail na gars yi cancel ministerial commission of inquiry so council toog noonu di operate with a deputy CEO ñu toog ba around 2022 in December court case bi jogaat yi fi injunction bi court bi ñu use reference Yakumba Jaiteh case bi ñu ne court bi as a a body amuñ doole. to restrict a public official from entering a workplace or going back to work but court bi ruling boobu mi ngay wax ne ñoom amuñ doole so it's speaking to the restrictions of the court not ne council amul doole to ask the CEO to go on administrative leave hmm. court bi waxut council lan la mun ak council lu mu munut court bi lu mu wax mooy ñoom luñ mun ak ñoom luñ munut ñu toog rek gars use that ruling manipulate ko demaat advice eh, président bi ne code bi rule na in our favour léegi CEO bi dafa war a dellu liggéey and Mr Jones man lu ma gën a jaaxal yow seen nga investigation team won nañ la ne council bi seen report on fraud is legitimate am na and still amuloo interest pour investigate ndax corruption am na or not yaa ngi forcé rek na ndaw si dellu liggéey is all political mooy ne ñoom seen xel léegi am nañ weapon buñ mun a use against an opposition council so nañ am ku nga xam ne léegi na fa nekka pour di sabotage council pour di obstruct council pour di am problème ak mayor pour KMC bu mu doxaat pour ñoom ñu mun a ñëw taxaw political platform pour wax ne KMC dafa fiir it's all politics wante I think allegations of corruption and fraud hmm. are so serious loolu warut a fanaan benn sa ci table ministre daf ko waroon a send straight to police fraud squad for investigation ñun ñu ne let them investigate anybody we ñun we are open to provide ourselves as witnesses eventually jamono ñooy waaw ndaw si del suwaat ndax yow Talib di nga ne ok let's move on this has happened. We know what we know. They know what they know. While pour make sure the council continues to operate, Talib can be all forgiving as Allah is all forgiving. ndax fu mu nekk ni jamono la ma laaj la dara ndax nit su reyee nit asa individual mun nga baalal koko Ah, ndax ah. nit su sàccee yaa luwaa an eye for an eye a tooth a tooth as an individual ndax mun ngaa baalal kooku ah. man awma doole pour baalal kenn waaw awma doole pour arrest kenn hmm. ñun lu ñu wax moo nekk dara xew na fii seen nañ ko police fa naa code bi ñoo war a make that decision wante as a responsible mayor hmm. ñun suñ amee allegation of fraud it needs to be investigated and then ñu amee bunta yooyu ñoo ñu mun a wax ne kii is innocent kii is guilty loolu nekkul suñ loxo so it's not a personal issue because KMC fii this is not the first time mm. over the past years as maa ngi fi nekk over ten people dismiss nañ leen over fraud mm. and smaller incidents moo tax ñu teg loi pour mu nekk foofu without fear or favour bu yàggul gis nañ permanent secretary bu ñu arrest def ko two years in prison so loolu du liggéey meeyoo wala liggéey anybody loolu liggéey coach la. ndax loolu ñun lu ñu doon wax mooy dañu waroon a hand over. nga ñaaka a wóolute ci suñu judicial system bi. non tegu ma ne because mbir bi àggut si judicial system bi ñu ko war a investigate investigate. mooy police bi mooy police yi oo aegis. so police seen liggéey. defuñ seen liggéey. ñu jàll loolu. Ah. Ah. léegi. still ci fii affaire yi corruption eh, sa ndaw yi jógoon ne fii at one time ah, ne nguuri président bi dafa corrupt ñu jëm ci seen bana yi slogan suma ay coow li coow li ndax yow ànda nga ñoom ci allégation yooyu noonu aw looy saxlaat ci loolu waaw for now ah, is the right of anybody mm. pour mu exercise their civil rights pour protest mm. waaw ah, ba pare yàlla def na ne def nañ ko si yoon because gars yi dañu apply pour permit police yi jox leen permit gars yi dem exercise their constitutional right to protest hmm. ah, wante ñoom tam lu ñu doon wax is based on the auditor's report from the National Audit Office nekkul ne ñoom ñoo jóg waxal ko seen boppa National Audit Office ñoo audit nguur gi génne many instances of mismanagement of funds misappropriation of funds missing funds and in their own words high degree of corruption so su fekkoon ne ndaw yi jóg nañ ne ñoom dañu bëgg a protest politique yi jox leen protest I think is well within their right. ndax Talib Bensouda on the 21st of May because dañoo sànni carte 2020 results yi du génn ba on the 21st the following day I know how it takes them to tabulate these results and announce them. ndax nañ dégg wiiw talib ak su fekkee ne dégg nañ wiiw talib lan mooy agenda bi ngay jaay voters yi incha allah nañ gis ne win nañ mai 24. Mm. Ah, am nañ confidence bi already mm. gis nañ ne nit ñi gëm nañ ñu ba ñu jox 15 seats ñun suñ agenda bi mooy pour continuer développement bi Ah, bu ñoo ñëw waste management moo nekkoon suñ biggest problème mm, mm, yàlla mm, def nañ ne ah, solve nañ ko tudi for the most part wante coming back ñu ngi am five point agenda ok um, nañ ko def six point agenda di ah, first five points yooyu major projects lañ then the six one boobu social services la on in the main five points dañu bugg a indi lu ñoo ooyee road network project pour develop 23 kilometers uh, KMC pour complement effort si government bi complement effort si National Road Authority pour defar lu ñoo ooyee feeder routes. ñu nekk alternative si highway yi. because gis nañ ne fu mu nekk moto yi yokku nañ nit ñi yokk nañ. ba pare KMC bariwut yoon. Um, di second agenda mooy pour develop more municipal markets. so dañu set up a uh, limited liability company to the Kanifing municipal markets. ñu ngi am target pour develop seven municipal markets over the next five years. am ngeen yi. am nañ place yi ah, these are public lands owned by KMC. benn rek lañ am pour jëna already def nañ deposit to buy it mooy Fajikunda. Um, seven municipal markets yi dafa provide one thousand vendor spaces. Um, di third agenda mooy dañu bëgg a indi recycling facility waste collection bi moom solve nañ ko. Hmm. wante problème bi léegi mënuñoo process waste bi. so dañu am plan pour any recycling facility with a transfer station and we, we are working with government pour create landfill outside of municipality bi because uh, West Coast ñoo am land. mooy dump bi foofu noonu. waaw so dump site dafa utee landfill dump mm. site mooy da ngaa tuur mbalit bi rek. waaw landfill da ngaa gas pa mm. nga protect ko with layer pour bu mu poison water table bi. ok den da ngaa buddi suul mbalit bi pour muy create biogas. Mm. so gis nañ suñ. moromi dëkk yu bari di ko def and that's the right way to treat waste because baa côté Domsaay nu mel soo ko buggee defaat feneen seen problème yaa faa nekk rek dafa poison water table bi dafaa indi laka-laka yu bari yu indi asthma causing uh, uh, diseases so baa côté Domsaay moom buggaatuñ ko am fen um, so loolu mooy uh, third agenda item bi fourth agenda bi dañu bugg a indi luy affordable housing because gis nañ ne ñu bari ñu ngi bugg a ñëw transfer dëkk KMC. Mm-hmm. wante kër yi doyuñ. Mm-hmm. so tax na ba luwaaskat yi every yee ñi ngay yokkal luwaas yokkal luwaas. Mm-hmm. ba tax na ñun ñuy doole yi mu naatu ñoo am fu ñu dëkka so that affordable housing project KMC daf ko bugg indi gis nañ ne social security housing finance corporation bu ñoo door amoon nañ idea bi wante dañ ko abandon wante dafa nekk liggéey yu nga xam ne council dañ ko dee def globally and ñu ngi set up entity bu koo def with experts. di ah, last major project bu ñu bugg a embark on mooy urban public transport um, gis nañ ne GTS yi indi nañ buses bu yàggut ah, plan nañ yeneen ñu nekk long distance yeneen yi ñu daw within the communities wante ba léegi gisuñ ne solve nañ problème yi urban public transport because urban public transport foog nga daw si biir communities yi doo mun a em si highway bi rek hmm. secondly tam foog mu affordable taxi mënut a charge nine dalasi yow tam nga caaj nine dalasi dafa war a gën a cheap pour mun a accommodate ah, ñu nga xam ne dañ ñëw doole so set up nañ entity called Kanifing Municipal Transport and we are very far in the development of plan boobu so that project we want to run it based on accessibility mooy mu dugg fu nekk in the same waxi accessibility tam mooy pour ñu nekk differently able ñu mun a am boss yu leen di dimbale pour ñu mun a eeg ak wàcca ah also dañu bugg pour mu affordable mooy pour mu gën a cheap dan di normal public transport then of course pour mu efficient bugga nañ bus service bu nga xam ne tam num mu yàgg a yàgg na mun a fay boppam bu because ñun amuñ kenn ku ñu subsidize government du ñu dee subsidize mm-hmm. ah, whereas GTS yi ñoom social security mu ngi leen di dimbali di leen support so ñoom suñ féelee suñ mekkul profit sax social security mu ngi leen di support man waaw man mm. ak yeneen Gambien ñu nekk KMC mm. am nañ benn façon yi am nañ loo xam ne suñ bébét la daal mm. jaaykat yi nekk ci mbedd bi yëpp di tilimal suñ dëkk bi ku nekkaa nge teg stall fii fii fii fii fii fii that's number one bugga nañoo gis ne loolu daal nga expliqué ñu lu tax loolu am ndax ak kañ nga ko génne second li gis nañ nit ñoo xam ne am nañ seen kër yi ñu def extension just du xew ci euh, Batil Harding highway bi euh, illegal nit ñi am seen kër waaye jël dati ci kaw yoon wi seen fu seen kër am ñu defaat extension ci kaw ci kaw yoon bi di créer ay créer yu garaaw ñi tay ñu ne samp boutique fu ko ne ci kaw ci kaw tali bi lan la KM di def pour saafaral loolu because man personally ak suma xarit yi ma dee toogal di waxtaan dañ ko dee waxtaan mm-hmm. su ko defee ma ne leen ah de bu amee opportunité pour toog ak meilleur KM te bii opportunité la dinañ ci waxtaan. mooy ne nguur gi dañu war a décentralise xam nga nguur gi mus naa développe décentralisation policy. Mm. mooy pour dooleel nguur yu ndaw yi. Mm. waa ñi responsibility government. amend local government ak bi pour nguur yu ndaw yi gën a am more powers because tey soo ñëwee physical planning. Mm. yëpp ñu ngi ko centralise at the ministerial level. physical planning soo demee yeneen dëkka dëkka yu advancé yi is decentralized every council am nga doole pour am sa ah, physical planning unit pour def sa own long term development plan and urban planning pour indi zoning laws pour indi land management laws wante ba léegi council si suñ whole physical planning activities are still centralized wante xam nga munuloo toog Banjul am fa physical planning office di jéem a contrôle luy xew Brikama wala luy xew Basse moo tax ñu set up councils in the first place because tey mayor lu mun a gis ci community bi access booy am mayor access booy am councilor mënuloo ko am ministre mënuloo koo am président so gis nañ ne as far as these government policies are centralized dafa métti trop pour mun a control di some of these physical planning issues secondly mooy suñu municipal police mm. suñ municipal police fekk empower wuñ gaay with the right resources with the right laws pour jox doole power of arrest pour jox gaay powers yu nga xam ne dañ ko niit pour mën a manage lan mooy xew si street si dafa métti trop am na benn yee pala dañu planoon pour dix clock Serekunda pour jaaykat yuy jaay si kaw tali yi ak kanami kër yi nit ñi yëpp pour dix clock leen génne leen fa but we could not do it alone because amuñ man power bi loo bi nekkul suñu side so ñu am a task force with the central police pour door dal exercice wante amut three days rek mu am groupe bu organise seen boppa dem ba State House pour report ñu ne ñu ngi leen di génnee si yoon bi so political yi gars yi inform police yi police yi pull seen support from council bi and mënuñoo implement exercise boobu wante tam luñ study Mr Jones moo nekk ñu waxee ne tam kenn du jaay si mbedda bi just like that mm. mun nañoo create economic problème mm. pour dëkk bi because Gambia ñu amul liggéey moo ëpp ñu am liggéey kon ñu bari fu ñoo faraatu mooy si mbedd yi di jaayantu so council bi plan mu ñu am léegi mooy rather than ñu toog tëb rek ñeneen nit ñi jóg leen si yoon bi nañ yokk am marché yi moo tax sax ñu indi dis KMM plan Kanifing Municipal Markets mooy ne suñ mënee tabax marché US dañ dañoo offer nit ñi lu ñu ooyee carrot and stick approach hmm. balaa ma ne la jugal ma ne la demal fii. ok soo amee shop booy mun a jaay. su ma la ne jógal den doo am excuse. soo bañ a sonal askan bi because munuñ leen a jox lekka bu ñoo teg seen table munuñ leen a munuñoo feed seen family fayal seen doom yi school soo ñu utal leen alternative fu ñoo mun a jaayee pour toppatoo seen family. so yow yaakaar nga ne boo dellusiwaatee ci office as mayor after elections yi. di nga war a jëlaat that initiative engage at government because government da ngay wax ñoom they would rather or nguur baa ngi wax right now ne ñoom they would rather have um, mayors and chairmen that are part of their party ñu mën a liggéey ak ñoom <laughs> right ndax yow you will engage government to look into this physical planning issue bi ma raise léegi nii ndax yaakaar nga ne you can work with this government so suñu waxee ne dañuy soxla ni ñu jógee seen parti pour ñu mun a liggéey fa naa waxi politics la and I think as far as government ñi ngi jiital yi fi politics rather than development Gambia dafa naxaree develop and as a ruling party ñoom ñoo waroon a woon that tolerance and that maturity in politics pour gis ne Gambia luñ mun di decide because Gambien yi ñoo leen saanil karta ba ñu nekk ruling party mm. but the same Gambians ñoo saanil opposition bi pour ñu amee seen place yi so foog naa dañu war a respect Gambien ni seen choice. Mm. ñu mun a liggéey ñu wonee tam ne we can rise above the politics pour développer suñu réew. because Gambia will never be a one party state loolu moom si biti la fanaan parti yi ne ñëw nañ dem ba pare at any given point multiple parties nañ téye multiple departments. so dëkk bi su waree développe ñun yëpp dañu war a exercise political maturity pour won ne ku mun di ñëw rek. mun nañoo liggéey ak ñoom and I think I am one mayor ku nga xam ne won naa ko government mm. I collaborate with all the eh, ministerial departments bu am work with KMC bu gaay ootee set setal through NEA without KMC support that set setal du succeed wante we were first in line we provided 300 uh, staffs pour support président bi 24 trucks pour dimbaleen seen waste collection bi So man proved now multiple times I can work with anybody. And I think example la sax pour won xale yi tam ne with any difference Gambia mun naa unite pour move in one direction. ñu ne yaa ngi charge pour collect refuse ñu ngi ko door a dégg ñu ne <laughs> sa tontu ci loolu. waaw I find that very interesting uh, because si njëlbeen bi bu ñëw Unitrox yi. su hmm. fekkee ne government bi was very interested. pour dimbale KMC. ni hmm. kon du ñu tax 13.1 million pour ñu génnee trox yi si port bi su fekkoon ne amoon nañ na yërmande askan bi na ngeen gars yi wax leen ne ñu ngi indi leen ñu am duty waiver. of course dañu apply dañu apply duty waiver. gars yi bañ gars yi bañ ñu charge ñu 13.1 million. so suñu amoon yërmande askan bi because 13.1 million bi nekkul ne suma poste la moo jógee mayor Bensouda. Hmm. it's coming from the taxpayers' funds of the people of KMC. jógewut political party si ñëpp la moo jógee so secondly pour nga ne waste collection musuloo dégg fu ñu koo chargé loolu jaaxal na ma trop because all over the world ñi ngay charge for waste collection waxal naka lañ koo chargé foofu la difference am soo demee Amérique dañ laa charge up front hmm. monthly da nga koo fay as a separate fee soo demee UK am na yenn municipality dañ koo charge inbuilt into your rates or dañ ko dee charge separately yooyu yëpp am na UK dara si àddina bi friwut dara si àddina bi friwut ida yaa ngi koo fayee nii wala yaa ngi koo fayee nale soo ñoom fu ñu doon waxee mooy ne yaa ngee fay rates ba pare lu ta nga war a ñëw fay waste collection mm, mm, mm. if that way true ne ñëpp ñi ngay fay rates ni kon ñun dañoo inbuilt cost bi into the rate system wante that is not true seventy percent of residents nekkuñ di fay seen rates moo tax soo bàyyee sa xel soo ñëwee si nawek amoon na time dañ la dee seen sa electricity bill everywhere bu dee wante buñ gisee ne nit ñi yëpp nekkuñ di fay si la gaay door cash power because suñ toppoon loolu dañoo bankrupt nga ñëw Gamtel Gamtel dañu am over two billion dollars yi worth of arrears because of billing si la gars stop loolu si la yëfi ah, ah, crédit ñëw so Gambia dañu defarul foundation yi dëkk bi pour allow billing system mu wokk so ñun bu ñoo door mbalit bi suñu idée moo nekkoon ne nañ charge extra fee bi si biir nit ñi seen rates da ngaa ne sooy fay sa rates loo war a fay mbalit nañ ko si yokk nga fayaale ko. wante su fekkee nit ñi nekkuñ di fay rates because billing system doxut moo tax ñu ñëw prepaid system soo pour yaa ngi laal lu am fayda rates waaw which a am revenue naka la nit ñi seen gëstu ci fay rate naka la mel it's very poor ah, rates lu si ëpp yëpp mi ngay jógee commercial hmm. soo council soo xoolee commercial compliance foofu la gën a xaay mooy business. because xam nga business neex naa trace. so council revenue lu si ëpp yëpp mi ngay jógee si business yi di jógee si hôtel ah, ah, ah, yi commercial rates hotel rates business license. wante as far as population bi mooy borom kër yi lu ñoo fay si naamoo is very minimal moo tax a lot of government services lag behind tey soo demee GRA nañ la wax same story. majority of GRA income nekkul di jóge si income tax mi ngay jóge si commercial taxes so ñëwaat si charge yi mbalit bi loolu standard la all over the world hmm. ba pare KMC mooy the only municipality bu nga xam ne dañu dem ut ñu suñ own moto without any government support ba pare ba tey moto yëpp ñu ngay dox without hindrance because am na report bu génnoon on a separate survey bu wonee ne only four percent of West Coast region's waste is being collected so soo déggee nga ne free mooy free of service mooy service amut ñu ne léeboon lippeen amoon na fi ñu ne daana am ma jël suma xaalis ma jël la ko nga ne sampal ma maakaan nga sampa maakaan nga ubbi maakaan bi invité wulo ma <laughs> ñu ne mag baax na ci kër de. noonu rek laa la ko mën a waaye. ubbi nga KFC. invite loo government <laughs> government ñëw nga def sa yi nga def yëpp. red carpet ñoom ñu nga toog def sa ñoom ñu toog seen toog rek invité wu la leen. Hmm. te seen 90 pour ci sa moom la dépassé sa place bi loo cee tontu nag. lu nga xam ne ñun daf ñu dee reeloo because dafa dafa funny um, ñun bu ñëw ubbi building bi. dañu buggoon comme ñu lay def rek ñëpp bokk si ñëpp gis si seen bopp. Hmm. invite nañ government through the ministry of lands and local government. because first time bi bu maa dégg seen wax yi ñu ne invite ñu leen. Hmm. léegi ñu ngi wax ne invite nañ leen wante invitation bi dafa liit. Hmm. waaw ñu ne invite nañ leen wante invitation bi dafa liit. wane ah. ñun lu ñu jaaxal suñu invitation yi bu ñoo invite ñëpp lañ ko seen sendandoor. wante niñ ko gisee ñu bëgg a ñëw ñoo teew because tey foog naa ne before anybody before any political party because fii invite nañ APRC gars yi ñëw nañ invite nañ GDC gars yi ñëw nañ invite nañ UDP gars yi ñëw nañ invite nañ other bodies in government and they were am na security sector bodies yu ñëw ñu teew du national army du police du other security installations so ñun we invited our ministry of lands and local government. waaye ñun xam nga amuñ direct line. ak président non waaye a goodwill gesture rek. waaw non xam ah, nga président bi dafa am sa government la jógee ko non président dafa am <laughs> <laughs> président am cabinet. waaw. cabinet bu respon ah, cabinet ministre bu responsible local government mooy di minister of local government. naa <coughs> ne waa bii gars yi ñoo ma ñoo ma nañu doon nañu doon neex su ñëwoon. ok man léegi mun naa ñëw. ba léegi we are inviting him mun naa ñëw seet si ñu anytime bu ko ne he's the head of state he's welcome anywhere. so dafa nekk lu nga xam ne daf ñu jaaxal trop. wante I think Gambia romb na fu nga xam ne dañu war a bàyyi wax yéen a wax. Hmm. Ah, because um, as the eh, eh, eh, KM. Hmm. KM is for everybody. waaw so man lu ma gis mooy ne xëj na suñ parti leader bu mu ñëwee mooy lawyer Ousainou Darboe ah, mu nekk at the time the highest ranking official who attended as the former vice president ah, mu dog ribbon bi mu nekk si red carpet mm, mm. xëy na loolu moo naxari gaay wante su ministre bi ñëwoon moom moo doon dog ribbon bi mm. dafa mel ni bu ñëw loñ suñ mbalit projet bi invite nañ ñëpp ñëpp ñëw nañ wante government ñëwut the former mayor, aha, and during the opening of this building, the former mayor Yanko Bokoli was here, the former mayor Lai Conte was here, the former mayor Keba Jalo was here. ñoom ñëpp bokk nañ si opening of the building so ñun suñ amee certain projects like that dañ dee bëgg a unite nit ñi pour woon ne lii du yëfi politics lii yëfi askan bi la lii yëfi region bi la but it's unfortunate ne noonu la demee. voilà léegi ñu ngi bëgg a tënk ji fii nii. ñaari. bataaxel laa bëgg nga yónnee benn bataaxel bi di dem ci électorate bi ne leen yow Talib Bensouda yaa ngi taxawaat pour make sure ne nga KM lan nga bugga ñu def beneen bi nga yónnee bataaxel ci nguuri président Adama Barrow ne ko yow Talib Bensouda boo gañee ci nii ak nii ak nii ak nii nga bugg liggéey ak ñoom waaw naa jiitu si nguur gi Euh, pour won leen ne ñun amuñ dara bot pour développer goxi KMC am ah, pare nañoo liggéey ak ñëpp pare nañoo liggéey ak ñëpp am ah, pare nañoo liggéey ak nguur yi Adama Barrow président baro road projects yu ma wax nii yëpp dañu bëgg a jàppa loxo ak gaay comité bu ñoo set sax pour road development bi NRA ñoo si jiitu ñu ngi si comité bi si recycling facility bi am na benn projet bu ñoo liggéey jointly with ministre ministre bi bu war a indi 50 million euros from the European Investment Bank and loolu duñ ko mën a def without partnership with government maa ministre bi ñoo door di work on it du affordable housing du municipal markets du urban transportation su luñ mun di yëngu dañu bëgg a gis nguur gi suñu biir because ultimately lii yëfi Gambia la hmm. ba pare politique dafa dem dafaa ñëw léegi-léegi ñu dégg président mi di ko wax sax am na président balaa moom na am président afta moom tey seen parti moo ilif ëllëg beneen parti na ilif as far as mun nañoo am maturité ne benn politique stable ut dafaa buddi change leena rek moo stable mooy Gambia. Hmm. ak nekk Gambian suñ mun a xoolante as Gambians rek dañoo mun a liggéey soo dénk nañ ko loolu ne ñun pare nañoo liggéey ak moom under my leadership and under the leadership of UDP in this council because am na ba pare ñun pare nañoo jàppal loxo ak gaay pour liggéey si yoon pour liggéey si dëgga pour liggéey for the supreme interest luy Gambia and Gambians loolu moom pare nañ ko tey pare nañ ko ëllëg secondly si ñëw si askan bi askani yi ah, KMC and askan yi Gambia man always leena laa leen dee dénka politique jarut xeex jarut xuloo jarut xaajaloo jarul saaga politique xalaat la rek xalaat yu utee la tey yow nga ne nañ dem this direction man ma ne ñu dem that direction wante suñ jubluwaay yëpp lan la pour Gambia dem kanam kon su fekkoon ne Mr Jones dafa bëgg a Gambia dem kanam Talib Bensouda dafa bëgg dem Gambia Gambia dem kanam even though ñi ngay jël different yoon kon que suñ jubluwaay benn la war nañoo mun a juboo on that basis kon di leen ñaan rek ñu politique with ideas politique ak xel kenn mënut a kenn politics politics naxante la rek waxtaan la rek pour nit ki gis yow loo gis soo di leen dënka waat rek Gambia dëkki jaama la dëkki ñaan la ñu continuer that trend ñu make sure ne at the end of the day ñu indi luy nekk di mutual benefit pour Gambien si yëpp kon loolu maa ngi koo dënka askan bi di leen advice nag. seen karta mooy di most secret weapon nga am as a citizen bul nangu kenn jëna ko sa loxo bu nangu kenn bribe bribe la pour nga def lu nga xam ne àndut ak sa xalaat ak sa mébét duñ mun a forcer kenn ne kaay nga support UDP lu ñoo ñaan ñëpp mooy ne ngeen tànna seen candidates based on seen gëm-gëm ak seen gis-gis wante not based on xaalis wala tribe wala lu nga xam ne du mun a yóbbu dëkk bi kanam kon xalaat boobu la ñoo bàyyee Gambien Talib Ahmed Bensouda incumbent mayor Kanifing municipality maa ngi laa jaajëf di la gërëm ci toog ak toogaa bi nga toog ak man ak jotaay ji waxtaan nañ ci bari ah, maa la wish good luck ci élection si ñëw yi thank you so much kooku di Talib Ahmed Bensouda di ah, incumbent mayor bu ah, KMC ci parti UDP don waxtaan man ci di special interview seen xarit Malick Jones àndoon ak yéen ñu endo ak jàmm jërë jëf